siècle. Attention. Un. Un. Ah, Hamakos. What's up? Un. Un. Hamakos. Enfin, maintenant, huit, huit siècles. Huit, c'est arrière, c'est là. Huit. Croisé. Huit siècles. Comme si on pouvait Bismillah. Oi! Tu conhece, pá. Você não conhece, eu vi, lá tem isso. Vamos ali. un ah. vas-y voilà évolution def yi parce que li nga abordé mouvement bi tu es de face tu veux faire un coup de da nga nekk de face dafay profil xool tànk bi xool beneen tànk bi ko si ginnaaw nga pousse na ça c'est de face tu restes là léegi mu jaar soo taxee ni dafay yéex tu restes Projeté, projeté. On est en train d'écrire parce que il faut il faut du yoon bi pour nga jaar il faut du yoon bi après nga jaar début à la fin on va travailler niveau moyen moyen vous êtes là vous allez pivoter vous entendez essayez de le faire à la gauche voyons voilà erreur de 42. Ah non, c'est 45. Hein. Allez, go Okey, bırak hani fekkee da nga ñëw nga fekk entraînement bu commencé ah xam nga la yow ah ñoo fekk ñuy entraîné tu montes pas est-ce que c'est pour ça sa sécurité la nga dem ci réew même su fekkee commencé ñaax moom da nga ci réew après tu la par exemple yow soxla woo moom mu parce que je suis en train de travailler moins 10 retardataires pour ñëw ma arrêté en temps ça ne peut pas donc tu es en retard ñu ñaan ici rek moom ci biir jënd comme ça salut après nga dem sol c'est-à-dire que mënoo jox ma autorisation moom salut ma jox ma autorisation de su ma ñëwee taay que je parle de moom daf ma di reste là-bas da doon ñëw rek nga taxaw nga dugg rek ci ci moom sama gàtt ça ne se fait pas tu ma jël aussi question de sens hein hii shetani hii shetani hii hii hii y'a personne toi tu viens tu te mets là-bas pourquoi à l'image fii la commencé soo ñëw ak soo ñibbi am nga autorisation dem naan wala dem toilette tu n'as pas besoin de venir parler ici non non tu viens n'est-ce pas bon les retards bon je j'essaie de comprendre les retards mais je ne veux pas comprendre chaque dimanche tu viens en retard chaque je sais par exemple que ñëpp xam nañ ni ñuy répondre téléphone je sais hein mais on va essayer on va essayer ok voilà bien prends ton parce qu'il vous connaît quoi. Mais ça ne fait pas le Donc votre téléphone ici au programme. Première chose à faire, soigner ce téléphone. Première chose, téléphone. Je vais vous donner une Première chose, nós vamos, vamos fazer islam prochainement Seydou Manson on va prendre la note lu ñu affiché si téléphone am donc il faut pas encore insister ñu woote quoi après ñu quoi allo il répond pas allo après nga pour cinquante mille fois di ko woote il a vu l' appel après dina la kii wala nga envoyé on ne sait pas am na ko mos a wax dix-huit fois je l'ai fait exprès defaat moom la wax ko kon kii la yëpp record ñaata la quoi suuf sa da nga bàyyi defaat du xaw mi wootee ni ko defee bàyyi rek ak benn kër quoi parce que j'ai eu des affaires dama ko xaw a sori quoi ñaata la quoi. di organiser ay stage euh, préparatoire chaque dimanche pour euh, préparation euh, passage de grade pour ceinture marron yi ceinture bleu yi donc actuellement bon dañuy réaliser programme bi nank nank chaque dimanche on révise le programme dimanche dañuy réviser programme yi du début à la fin comme ça pour mieux se préparer par rapport que suñu passage bi nga xamante ne nii léegi mu ñëw ak euh, maître dam sekk lañ koy préparé moom mi nga xamante moom moo ñu yokk fii ci saxla waaw waaw naa ci parce que ñun dañuy entraîner durant la semaine donc léegi dimanche bi dañu ñu permettre bon ñu revisiter waat euh, programme par ceinture donc ñu permettre li ñu fàtte woon maître di ñu ko fàtte i di ñu ko jàngal ak tamit ñuy gën a par rapport aux différentes méthodes poing, coup de pied, euh, chutier et tout. Bon, même si on aurait souhaité tamit, après passage de garde tamit ñu doon tam dimanche tamit parfois ñu daje ak suñu yeneen naataango yu nekk ci yeneen saa yi permet de évaluer tam suñuy niveau de compréhension ak yëpp. Daouda Gningue euh, sant sama doom daa nekk maître d'armes nekk maître bu mag nga tudd am sens. nga am maître boo xam ne dafa dafa nekk haut niveau daal bu baax loolu tax nga xam ci lu bëri xam-xam yëpp noonu la xam-xam boo dugg rek nga am ci maître boo xam ne moom géeju na ci loolu da ciy baax waaw te itam dañoo amoon stage bi pour passer seen tir après mois d'août lay doon incha allah waaw lundi la ñuy entraîné mercredi ak vendredi mais dimanche bi tey dañoo pour passer ay stage ma ñu neex na neex na am na solo trop am na solo dina la fàttali lu yi nga xam woon tam nga xamaat ko ci waaw tax passage bi yomb ci yow daal. maa ngi tudd Fatima Anne entraîneur team AS Cambérène Sall Ibrahima Anne loolu dañoo ñëw fii tey nag pour préparer suñu programme passage de grade ceinture rouge voilà bi comme bare rek métti na méttiwul nga am na nañu ci xaw a yokk tuuti mais góorgóorlu rek gën a góorgóorlu incha allah dina baax. média moom mun naa ni ah sama idole idole la parce que sama maître mooy sama idole sama maître man daal mooy idole sama idole la daal. tudd Codé Ndeye dëkk Yaraax bokk Pingam Tindam Yaraax élève maître Papis préparation pour def de grade génn Maroc parce que dañuy yàkkamte en fait sax dimanche jot nga ñëw pour jël sa programme parce que lu baax la gis sama bopp parce que ku xam dimanche xam ne euh, dimanche dafa bëri programme en même temps que da ngay nelaw ba yenn heure mais boo defee sacrifice rek pour dagg sa nelaw pour ñëw entraînement rek kon xam ni kon maa ngi ciy gis saw bopp mais daam moom mention spéciale parce que dafa nekk nit nga xamante ni dafa baax en même temps que idole la en même temps que dafay joxe bon exemple su ko gisee muy dem di dox rek nit ku bëri mën na jël ci moom exemple parce que moom rek exemple la en même temps man moom moom lay roy moom lay roy parce que am na yar am na teggin waaw man daal lu mu mën a wax si Maître bu ma ko doon toog fii ba wax bu suba du jeex parce que Maître Dame ku ku jox cër doomu aadama la ku jox cër doomu aadama la di ko ñaanal yàlla nag ñu koy dégg fu sori gaa ñi ngi koy dégg fu sori ñu gën ko gën ko gën gën ko dégg fu sori parce que kii na ay élèves ya nga xamante ne aussi ñu ngi leen dégg fu sori kon moom gàcce ngaa la amoon. waaw euh, Arona Seck donc je suis directeur technique euh, national du APIDO Sénégal. waaw stage bi nag bon si moom la ñu tuddee le stage des maîtres le stage des maîtres de salle donc tax ñu xam programme bi nga xam ne moom la ñu war a dérouler dans dans l'année donc pour que déjà ñu assuré wu ko maître de salle yëpp xam nañ ko pare donc après ñu mën ko diffuser au niveau des clubs xam nga contexte su tax na programme dañ ko changé parce que Akido xam nañ ne que discipline la boo xam ne c'est beaucoup plus euh, les clés donc euh, percussion yooyu. mais comme dañ koy tere fu nekk nii c'est pas possible ñuy laalante ak yooyu donc il faut imaginer une autre forme de programme donc boo xam ne dañ koy diffuser au niveau des clubs quoi pour compétition yi ak donc looloo waral donc dimanche bi c'est mooy vraiment jour bi moom nekk salle donc ñëw donc pour jël ce programme là pour après t'associer si club et c'est ça se passe très bien donc déjà on à un mois donc fu nekk nii suñu suñu suñu suñu quatrième semaine donc ça se passe très bien et c'est dirigé par euh, par par maître Dame Seck nga xam ne mooy suñu ñett ñun ñëpp ñun ñëpp moo fi mooy suñu yàlla def ñu jàngal donc euh, ba tey si loolu la nekk donc image notre programme donc moom la ñuy jëlee sànq vraiment ça se passe très bien. waaw di di leen donc si visibilité bi nga xam ne maa ngi koy may déjà ça très important ensuite euh, remercier monsieur le maire Dame qui est toujours là pour nous depuis ñu nekkee xale ba léegi di avec donc euh, pas remercier suffisamment donc ñu ñaan yàlla rek yàlla dafa ko cat suñu bàyyi suñu kanam bu yàgg di di ko si kanam incha allah. maay euh, Ibrahima Ba c'est Touba Kër Ndane Apollo nekk président association sénégalaise ab donc euh, après euh, problème Covid-19 euh, bi donc dañuy décidé reprendre les entraînements mais si yenn conditions yi déjà il faudrait que salle bi ñu ne ñu la ñuy désinfecter de manière constante également comme gis nañu ko tout à l'heure balaa ñuy dugg ci salle bi il faut que nga raxas sa loxo mu defal. kii bi test bi pour xool sa température bon loolu moom c'est facultatif en en fonction des salles également nga def utiliser gel également dañu war euh, de masque obligatoire toujours aussi respecter distanciation bi c'est-à-dire le nombre d'élèves yi war a entraîner si salle bi donc ñu ko war a respecter donc euh, il faut de un nombre en fonction de surface kii euh, bi superficie salle bi ngeen di donc salle moom lu utiliser les autres salles ñu mun en place benn dispositif boo parce que yaa ngi respecté li ñuy respecté ces ces mesures barrières donc entraînement yi démarré nañu à chaque fois chaque dimanche ce sont les maîtres de salle qui se regroupent aussi pour que ñu harmoniser non seulement les techniques de et autres mais également être tout le monde au même euh, niveau d'information parce que am na information yu ñu jàllale si ñun si kii jàllale pour que Macky Sall xam lépp lu euh, actuellement dañuy préparer également benn passage de grade au mois d'août donc ñu yónnee circulaire si au niveau des salles que ku nekk xam yan condition ak yan disposition ñu mun jël ñoo war a participer si direction technique aussi ñu ngi génnee ñu en place benn programme d'activité boo xam ne moom moom la ñuy permettre ñu eggali saison bi toujours avec le respect des le respect des des règles barrières donc affaire boobu que di xam ne que am na déjà am na xam ne toog nañu yàgg ak ñoom donc ñu xam ne aussi bés bu ñu naka commencé entraînement ñu xam ñu koy démarrer daal ñëw di manière boost ah, ah, ñu def di manière crescendo ah, pour ñu gën a mën a donc di demander aussi euh, comme ni ko permettre ñu ubbi salle yi ñu respecter les conseils yu ñu joxe euh, pour que euh, comme on dit toujours le virus est là donc il faudrait le vivre avec mais également il faudrait ñu mun adapter suñu comportement et autres par à ça justement au maître de donc de respecter toutes les décisions nga xam ne moom la seen clic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko